naar bi itam ci wàllu pas mën xaju salaf pas-pasu salaf ci seen jàngale ci wàllu pas yi ak ci al wa sifaat moom la ci topp ñetteel ba itam ci wàllu fiq du ci génn al mazahib al yi nga xam ne eh, ñoo gën a siiw attey fiq yi fi joxe du ko ci génn ñeenteel ba itam li ñuy tudde al israiliyaat muy nett yoo xam ne dañ ko jële ci israiliyaat yi te lu ca bari nekkul lu wér yooyu itam du ca du ko andi wala boog lam cay indi ci loo xam ne israiliyaat la mooy loo xam ne xëy na dana dimbali ci dégg aaya ba te mu doon loo xam ne itam lu dagana nettali ci ñoom la ndax al israiliyaat mu yi nga xam ne yahood yi ñoo ko daan nettali ahlu kitaab mu yonente bi sallallahu moo ne woon man ngeen a solo jële ci ñoom waaye dañuy wax ne li ñuy solo jële ci ñoom benn muy loo xam ne xam nañ ak dëggoom ndax alxuraan dëggal na ko lu ñuy wax ñoom loo xam ne alxuraan wax na ko mel na te ñu la doon nettali xisatu ashabil kahf waxee la ko ne al alxuraan waxe kooku nga dimbali ko seen wax ja mu gën laa leeralal li alxuraan wax du aay ak lu ñuy wax loo xam ne nag ñoom alxuraan daf ko wetti maanaam lu ñuy nettali ñoom loo xam ne alquran dafa ñëw ne loolu amul lu mel ne tey ñuy wax ne Isa dañ ko rey alquran ne wa maa xatalu wa maa xam ko lool bu ñu la ko nettalee da nga xam xel na loolu moom du dëgg ak nag lu ñuy nettali loo xam ne alquran léeralu la dëgg la wala du dëgg alquran da caa noppi kooka nag loola la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne loola bu boobaa bu leen ko dëggal bu leen ko weddi waaw da ngeen koy jël noonu rek dafa dagan rek nga nett ko dëggal bu leen ko weddi kon nett yi di séddalikoo loo xam ne leer na naññ ne moom lu wér la loolu la wax ne moom dara ci di dibbandikoo pour leeral yenn aaya yi juyoo euh, yu bari yi am ci tafsir itam yooyu itam xilaafaat yooyu muy juyoo yooyu itam du ko indi da cay seet rek la nga xam ne moo gën a lëng moo gën a jege dalil ci fa xam-xamam toll mu indi loola itam li muy tarjeex maanaam li muy gën a dëgëral mooy li ibnu jarir ab tabar yi wax su fekkente ne juyoo na ak mu yeneen mufassirun yi masail yi nga xam ne day nekk ay masalay naxwu itam kooku itam du ci sore ak balaaxa yenn tafsir yi dañuy xóotal ci naxwu lool parce que tafsir benn bu ci nekk dafa am genn wet goo xam ne ca la gën a jëm lu mel ne boo demee ci tafsirul xurtu bi moom daanaka fiq rek ko tax a jóg tak rek bu tax a yi ci def yeneen ahkaam yi ci def euh, du ca du ca sori lool nee itam du def ci yi alquran yu yi da nga gis tafsir boo xam ci lool rek lay nekk moom di wax aay bi di nii la koy jànge di nii la koy jànge di nii la koy jànge itam ci sori dana ca Cheikh Aboubacar Jazaa'iri eh, boroom xam-xam la koo xam ne ba léegi mi ngi dund yàlla na ko yàlla gën a yokk ak dundam te barkeel ko eh, tafsir bi ñu ngi koy defee ci almasjidu nabawi jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boroom xam am toogo bu ñuy toog di jàngale eh, ca la bokk bokk ci mag yi nga xam ne itam ñu ñu ràññee lañ ci seen xam-xam moo defar minhajul muslim ak yeneen téere yu demee noonu Euh, du ci moom rek rek la ñuy yem mais day xool yeneen tafsir yëpp waaye nag fii ni mu ko jàngalee ndax la muy njëkkee moom day njëkk a leeral baat ya lañuy ñuy firi su aaya ba jeexee nag mu indi maanaam aaya ba su loola jeexee mu indi aaya boobu lan lañ ci mën a jëlee ci ay jàngin waaw nga xam ne kon doo déglu rek dem mais loo jàng lu nekk nga xam lii dars bii tey loo ci war a mën a jëlee ci sa dund tey yan leçon nga mën a tiire ci loolu nga xam ne moom nga doon dégg léegi noonu noonu noonu moom noon la koy euh, defee incha allah su ko defee euh, ñu dimbali ko ci tafsir boobu ndax yàlla mën nañu cee bu baax. Euh, kon ñu tàmbali ci suratu fatihatul kitab comme suratu fatiha moom ñëpp ko mokkal moo tax génnewuñ si ay kàddu incha allah. dafa njëkk a xam ne lan mooy tafsir mu ne tafsir li muy tekki. nee mooy saraa ak leeral waaye nag nee na bu ñu ko waxee te jublu ci alquran nag ñu ne tafsirul quran nee na mooy leeral waxi borom bi tabaraka wa taala ngir ñu dégg la ci yàlla namm ngir ñu xam la yàlla namm ci waxam jooju ngir ñu mën a topp <coughs> ndigal ya mën a wattandiku tere mën a jël njub ga nga xam ne moom lanu wan moom la nu aaya la borom bi tabaraka wa taala di wax njub gëm lu cay tegtal ñu mën koo topp bu dee ay xista yu nuy nettali la ñu mën a waaru ca xista ya man caa jàgg kon loolu la ñuy jublu ci tafsir parce que alxuraan génnul loolu benn muy ay ndigal wala muy ay tere wala muy ay tegtal fu mu lay joxañ ne la jaaral foofu wala ay xista muy ay xew-xew yu weesu woon mu di la ko nettali ngir nga man caa waaroo mën caa jëlee ay bind bu dee ñu baax la woon nga mën a góor góorgóorlu roy seen baax googee ba mën a am lañu amoon bu dee ñu dëng lañ woon nga mën a wattandiku seen dëng gën ba fa ñu mujjoon doo fa mujj waaye yooyu yëpp nag bala nga ko mën a jariñoo day fekk nga xam wax ja lan lañ ca jublu mu ne ab suura li ñuy tudde saar nee na loolu ab xaaj la ci alquran mën naa nekk ñetti aaya ci gën gaa néewam saar yi ñu gis mu gën a gàtt ñetti aaya lu mel ne suratul kawsar mën gudd loolu itam nag mel ne suratul baqara moom mooy saar bi ci gën a gudd bi ci gën a gàtt moom mooy suratul kawsar al fatiha ñu ne fatihatu kulli cheyin bidayatuhu maanaam lenn lu nekk la ko tàmbali loolu mooy fatiha lenn lu nekk fatiha li muy tekki muy lu ubbi rek mooy lu tàmbali kon fatihatul quran li nga xam ne moo ubbi alquran ci ni ñu binde kaamil bi lañ ne wala lañ wax nag waaye du moo ubbi alquran ci moo njëkk a wàcc ci alquran am na sax ñu koy wax waaye nag riwaay bi gën a wér moom mooy euh, iqra moo njëkk a wàcc comme ni mu siiwee loolu moo gën a wér waaye nag ci kaamil bi bi ñu koy bind di ko taftale nii te yonente bi sallallahu alayhi moo ko diglee noonu ñu taftalee saar yi noonu boobu sax binduñu kaamil bi waaye nag saar yi moom moo leen wax taftale gi ni muy taftaloo nde moom gannaawam lañ ko doog a bind dagale ko boobu daa dañ ko bind rek ci ay bant ak ay yax ak ay xeer ak yu demee noonu waaye Abu bakar radiallahu anhu ci lañ ko nag doog a dajale waaye nag tartib bi muy saar yi ni muy toftaloo loolu tawxiif yi la ci moom la ko saxaaba yi eh, jële eh, suratul fatiha nag am na tur yu bari donte fatiha boobu moo ci gën siiw bokk na ca ñu di ko tuddee ummul quran danañ ko tuddee ummul kitab danañ ko tuddee ak sab'ul masani muy juróom-ñaari aay yi nga xam ne dañuy dem ak a dellu si ndax yaa ngi leen di jàng ka jàngat benn julli rek da ko ci jàng ay yooni yoon ndax rakka bu nekk da nga ci jàng fàtte saare alxuraan yi itam yii makka lañu wàcce yii madina lañu wàcce yi nga xam ne yëpp dañoo wàcce lu jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàddaay yooyu lañuy tuddee as suwar al makkiya jëm gàddaayee ba pare nag doonte sax nekkul biir madina dafa ne cib xare wala mu nekk feneen yooyu la ñuy tuddee assuwar al madaniya muy saar yi nga xam ne dañuy wàcce madina saar yi wàcce makka nag li ñuy gën a ràññee mooy ak gàtt ak gàtt te dégg sax koy wax saar wu ndaw mais saar wu saar moom benn ndawu ci kenn dox wax saar wu ndaw dañuy wax saar wu gàtt rek waaw gàtt na daal waaye nag moom benn ndawu ci moom alquran lépp a mag ñoom saar yooyu ci pas-pas la gën di wax rawatina ci mbiru yowmal xiyaam di dëgëral pas-pas ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla saar yi saari makka yi loolu la gën a ràññi ko bu dee saari madina yi nag moom ci atte yi lan moo dagan lan moo xaraam lan moo war a nekk jëflante diggante nit ñi wàllu njaay ak wàllu sëy ak wàllu atteek yooyu yëpp saari madina yi ñoom ci la ñuy gën di wax ndax boobu fekk na pas-pas yi dëgër ba pare mbooloom jullit mi bari moo yooyu ñaare dañuy faral di gudd. Ah, alxuraan nag borom bi tabaraka wa moo digle ne ku koy jàng wala ku koy bëgg a jàng da nga muslu seytaane al istiaza na nga muslu ñaan yàlla mu musal la ci seytaane nga wax. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن ورمونا فإذا قرأت القرآن سو جنج القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نجا مسلو آه، يالا نجا نيان مسل الشيطان شيطان ميغا رجيم لا مانا كونو جام لا كونو سورين بروم تبارك وتعالى awuzu li muy tekki mooy maa ngi làqu maa ngi làqu billaahi ci boroom bi nga xam ne moo am kàttan te moo xam lépp maa ngi làqu ci moom min asheytaan ci iblis laanahullah arrajim iblis mu nga xam ne marjuum la maanaam dañ koo soril dañ koo dàqu ci yërmande yàlla ak lépp loo xam ne yiw la moom du ko jege fenn am àtteem nag moom istiaasa boobu sunna la dañ ko sunnaal képp koo xam dafa na ma jàng alquran sunna la nga def ko nekkul farata waaye sunna la comme niñ ko soppee ci koo xam ne sax dafa mer donte nekkul ci ak julli waaye dafa nekkul ci jàng alquran waaye mer da koo dikkal rek wala mu xalaat xalaat yu ñaaw sopp nañ ci moom mu muslu ci seytaane ndax yëpp seytaane eh, moo koy def borom bi nee na yu waswisu fii su dóori naas moom mooy jaxase eh, xoli al basmala basmala nag mooy bismillahi arrahmani arrahim bismi mooy ci turu borom bi tabaraka wa taala bismillah ci turu yàlla tabaraka wa taala ci laay tàmbalee la may wax wala la muy jëf moo tax dañuy wax ne ma nga aju ca la ngay bëgg a def rek boleh ne bismillahi rahmani rahim fekk ngay war kon li muy tekki mooy arkabu bismillahi rahmani rahim soo dee lekk soo dee bismillahi rahmani rahim mooy aakulu bismillahi rahmani rahim ca la aju kon la muy aju toujours aju na ci loo xam ne doo ko tudd waaye la ngay def rek place ba mooy wane ne loolaa tax ngay def maanaam ki tegal mu ne bismillah lu mu bëgg a wax ay maa ngi lekk ci turu yàlla ubbi téeréem ne bismillah ay maa ngi jàng ci turu yàlla kon looy def lu nekk rek da nga ko war def ci turu borom bi tabaraka wa taala tax borom bi ne iqra bismi rabbik sooy jàng na jàng ci turu borom bi tabaraka wa loolu tekkiwul ne day wax ne na nga jàng loo xam ne rek yàlla la jóge maanaam alxuraan kese déedéet même mën ngaa jàng même xam-xami àdduna yi waaye na ko jàng ci turu yàlla na ko jàng ci dimba dikoo borom bi tabaraka wa di ko jàng bul génne yàlla ci lenn looy def waaw rawatina nag xam-xam yenn xam-xam yi bañ ci génnee yàlla la nekk musiba ci kaw doomu aadama xam-xam yi àdduna yi fi ci doomu aadama egg ci wàllu xelam su fekkoon ne lépp yàlla ci dimbandikoo kon doomu aadama fi mu ne ci texe lay nekk waaye bañ ci génnee yàlla nag la soppiku nag tooke soppiku musiba ci seen kaw di leen alak di alak doomu aadama yi ndax borom bi tabaar ña koy jàng jàngatuñ ko ci turu yàlla tur seytaane lañ koy jàng muy lu neex seen bànneex ak lu leen mën a andil alal arrahman tur la ci turi borom bi tabaraka wa ñu ngi ko jëlee ci arrahma yërmande ci la baatu arrahman jóge day tegtale nag ak bari arrahman day tegtale borom yërmande ju bari ji nga xam ne ñépp ñëpp ngi ci tàbbi ci biir yërmande jooju bindeef yëpp arrahim moom itam meloo la ci molakaani borom bi tabaraka wa taala moom itam ci arrahman lañ ko jële dana am tax ñuy wax naan arrahman kii xéewal ci àdduna arrahim kii xéewal ci àllaaxira mais ñaar yëpp yërmande la joo xam ne am nañ am nañ àdduna am nañ àllaaxira rahman nag da yërmande ji gën a jagoo ji gën a jagoo jaam yi nga xam ne moom borom bi tabaraka wa taala na leen ñooñu ñoo gën a jagoo rahim boobu te dañ koy am ci àdduna dañ koy am ci alaxira ndax lek ba am moo xam ne yàlla ñam cay musal mooy ñi gëm yàlla wala ma jaa amruna najayna hóodan wallazina amanu maahu bi rahmatin minna kon fii yàlla dana fi jagleel yërmande dañuy wax ne yërmande yàlla fii ñëpp a ci tàbbi déet mais dana ci am yërmande joo xam ne ñi gëm yàlla rek ñoo koy jagoo am na ci yërmande joo xam ne nag jii dundal doomu aadama yi taw beeg ngelaw leeg naa ji jant beeg yooyu nga xam ne yëpp dund bee ko laaj yërmande yàlla jooju kooku moom ñëpp a tàbbi ci biir ñi gëm yàlla ak ñi ko gëmut ak bàyyi ma ñëpp a ngi ci biir. yomal xiyaam itam noonu dana am yërmande joo xam ne ñëpp a ñuy tàbbi lu mel ne taxawaay ba ñuy taxaw ñëpp bëgg yàlla atte leen même bi yàlla gam nangu ga muy nangoo atte loolu yërmande la joo xam ne même yéefar baa sax waaye comme ñu ngi koy atte rek jóge nañ ci taxawaay bu yàgg boobu di atte loolu yërmande la joo xam ne ñëpp a ngi ci biir donte eggul nag ci yërmande joo xam ne ju koy musal ci mbugal la kon basmala muy bismillahi rahmaani rahim maanaam mooy da ngay wax ne maa ngi jàng di barkeeloo ci turu borom bi tabaraka wa taala di ko dimbandikoo itam moom sunu borom tabaraka wa taala ci njàng mi may jàng alquran ab atem nag lu ñu sopp la wala lu ñu lu ñu lu ñu sàkku la sax lu ñu dëgëral la ci képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran su fekkee da ngay tàmbali aw saar moom day war bu dul suratu day war nga wax ci bismillahi rahmani rahim wala budda minha fi ibtidaika suratan siwaha wa fil ajsaai xuyira man tala wala budda minha fi ibtidaika suratan soo dee tàmbali aw saar moom il faut nga andi bisimilah rahmaan rahim mu ne siwaaxaa bu dul suuratu tawba mu ne wafil ajsaas fekkee ci biir isib yi laan yooyu nag nga xam ne tàmbali wa bopp saar da ngaa ne ci biir saar yi biir saar yi di tàmbali ab rooba wala ab isib mu ne kon boobaa ixtiyaar yi la bu ne neexee nga wax bisimilah rahmaan rahim bu la neexee nga bañ ko wax. moo tax mu ne wafil ajsaa yi xoyira dañoo tànnaloo mantalaa kay jàng ci mu wax bisimilah rahmaan rahim ak bañ ko wax lu tàmbali tilka rusulu bëgg a tax la ne tilka rusul faddal na baax bu la neexee ne bisimilah rahmaani rahim waaye ba aouzu billahi min satan rajim bi moom da nga koo war a am waaye su fekkee du tàmbalew saar nag bu la neexee wax bisimilah rahmaani rahim bu la neexee bañ koo wax. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdu euh, mooy melal ci ab ak tagg ki nga xam ne moom ngay sant alhamdu ak cant waaye ki ngay sant nga di ko melal taaru gu mu taaru ak sant tagg goo xam ne yaa ngi koy tagg ngir ay ngëneelam ak ay mbaaxam yoo xam ne eh, defal na la ko moo tax borom bi tabaraka wa taala moom rek moom moo ko yeyoo dañuy wax ne wuute na ak almadax wa sukkur almadax moom lu ñu tuddee aw tagg moom tam tagg lañ koy wax moom dees na ko def nit ki ci loo xam ne lu mu defal boppam la ak lu mu defalul boppam a des na tagg nit ci ab taaram wax xam ne yàpp dafa taaru rek ñu di ko tagg naan ko sa taar bi waaye sukkur nag dañoo wax ne moom kenn du ko defal nit ci lu dul lu mu def maanaam kenn du kenn du sant nit ci naa ko maa ngi lay sant ci sa taar bi nga taaru ndax kenn du ko wax mën nga ko ci tag waaye doo ko ci lu mu def ak sukkur moom léegi il faut day ànd ak ma day fekk lu xéewal gu mu def la. alhamdu nag da leen dugal ñoom yëpp ndax borom bi tabaraka wa taala dafa yeyoo nga tagg ko ci même bu la defalul woon dara sax màggaay gi mu màgg ak kattan gi mu am kattan ak baax gi mu baax rek dafa cee yeyoo aw tagg boo rek nag xéewal yi mu la defal nag nga war ko cee santaat nag kon moom dafa yeyoo tagg yeyoo itam sant moom borom bi tabaraka wa lillaa maanaam cant googu yey na ñeel suñu boroom tabaraka wa moom mi nga xam ne moo yooyoo lépp loo xam ne xeetu cant la rek borom bi tabaraka wa taala moo ko yooyoo rabbil alamin ar rabb danañ ko firee as sayid maanaam koo xam ne moo ab sang la dañ ko firee al malik ki nga xam ne moom moom dañ ko fi al muslih ki nga xam ne mooy yëwénal say mbir dañ ko fi al maabud ki nga xam ne nag dañ koy jaamu kon yooyu yëpp dajee na ci borom bi tabaraka wa taala ndax borom bi moom moom bindeef yëpp mooy yëwénal seeni mbir moom rek itam nag mooy yooyu ñu jaamu ko kon moom mooy ar rab rabbil alamin moom mooy boroom bindeef yëpp al aalam dañuy wax ne huwa ma kullu ma siwa lépp lu dul yàlla rek tabbi na ci aalam aalamul malaayika aalamul jinn aalamul in aalamul xayawaan kenn ku ci nekk aalamu boppam la buñ ko boolee nag moo tax ñu ne rabbil aalamin kenn ku ci ne daa mel ne monde boppam la xam nga mala yi daa mel ne seen addunay bopp lañ yor dëgg la noo bokk adduna bi mais bokkunu doxalin bokkunu doxalin jinne yi itam seen adduna bopp lañ yor seen monde bopp lañ yor waaw même ci nit ñi sax bu ñuy wax ñi nga xam ne dañoo féetewoo genn wet sax nekk ay chauffeur wala ñu nekk commerce wala dañuy mel ne dañoo am seen monde bopp waaw maanaam seen doxalinu bopp waaye ñooñu ñëpp nag muy jinne lañ wala nit lañ wala malaaka lañ wala mala lañ wala gàncax lañ ñoom ñëpp borom bi tabaraka wa taala mooy seen borom moo tax ñu naan rabbil alamin ki nga xam ne mooy borom bindis yëpp ku dul yàlla rek tabbi na ci alamin mu ne maanaam aaya boobu alhamdulilahi rabbil alamin nee na bi day xibaare ne mbooleem xeeti cant ak melay mag ak mat borom bi tabaraka wa taala rek moo ko moom moom képp ndax moom mooy ki nga xam ne mooy borom lépp te mooy ki bind lépp te moom moom lépp itam kon nag war na di ko sant fu ñu toll war na di ko tagg moo tax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم liñ ko leer la woon ca bismillahi rahmaani rahim ba tey maanaam moom rek la yor boroom yërmande ju yaatu ji ci nga xam ne daj na ñëpp arrahim boroom yërmande ji nga xam ne itam daj na ñëpp waaye nag dana ko jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soob ci ay jaamam te mooy ñi ko topp maaliki yawmi diin maaliki am na ñaari jàngin am ñu jàng maliki dana ci wars yeneen xuraa yi mu neen wa maaliki yawmi diini raawihi naasirun wa maaliki yawmi diini jàng maaliki yawmi diini raawihi mooy kisaa yi ak aasim juróom-ñaari jàngkat yu mag yooyu ñaar rek ñoo ci jàng maaliki yawmi diini mooy kisaa yi ab sëriñ la boo xam ne dafa am ñu jëlee ci moom ak aatim aatim mooy sëriñu xabs xabs ñuy kaamil yi ñuy jàng kaamil yi xabs lañ xabs ab taalibe la raawi la sëriñam mooy aatim moo tax ngay dégg ñu naan bi riwaayati mooy cheikh ba mooy cheikh bu mag ba kon ñoom ñaar kon ñaar lañ ñaar ñi rek ñooy jàng maaliki juróom yi ci yëpp ñoom maliki lañuy ñuy jàng dama ne wa maaliki yow mi diini raawi raagi kisa lay wane naasirun noon nga aasim lay wane parce que sëriñ si daleen leen dul mën a tudd ci biir woy wi kenn ku ne mu la ko arab foo xam ne bu ko tuddee rek kooka la ci jublu waaye maanaam yëpp benn la parce que al mooy ki nga xam ne moom moom ngóor gi ki moom ngóor gi di ca def lu ko sopp di ca soppandikoo lu ko sopp la ñu tuddee malik malik nag mooy ki nga xam ne mooy boor bi ci boppam xam nga boo ko seetee benn parce que buur bi moo moom nguur gi buur bi ci boppam moo moom nguur gi kon bu nekkee neexee tudde ko boroom nguur gi bu la neexee nga tudde ko buur bi waaw boo nee malik mooy buur bi soo nee malik mooy boroom nguur gi boroom nguur gi kon maanaam bi moom benn la mooy boroom nguur gi nga xam ne daal mooy joxe mooy xaje lu ko ci neex def te amul kenn koo xam ne nag dana ci diisoog yow wala nga sañ a sotti li nga xam ne moom la def yow mi diin yow mu diin mooy yowmul jësaa mooy bisub fay ba bisub fay ba borom bi moo ko moom moo fay buur itam nag moo moom bis ba moo fay buur ndax danaan limanil mulkul yawma al mulk nguur ana kan moo ko fi am tey lillahi al wahid al qahar kon moo fay moo fay saahibul mulk moo fay malik itam nag parce que saahibul mulk huwal malik borom nguur mooy mooy buur borom nguur gi mooy buur bis boobu mooy bis yowmal xiyaam nee na moom moo ko moom ba nga xam ne ca lay fay bépp jaam la nga xam ne jiitaloon nga ko jëfoon nga ko tam tudde maaliki yow mi diin <coughs> aaya boobu maanaam nee na borom bi tabaraka wa euh, day tagg boppam di xam la ne mooy ki moom lépp lu nekk yowmal xiyaam foofee nga xam ne kenn amu fa dara laa tamliku nafsun li nafsin shay'an foofu lépp borom bi tabaraka wa taala moo ko moom bu dee fii am na fi lu mu dénk doomu aadama yi mais bu dee yowal xiyaam nag lépp ci loxoom la nekk moo ko moom keroog nguurab googu amul geneen nguur goo xam ne guy nekk ci wetam la aaya yooyu ñu jot a jàng muy alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin nee na mën nañ cee jële ñaar yëf bu jëkk bi danañ ci xamee ne yàlla ku bëgg ak sant la ba tax na mu mu sant boppam tagg boppam kon bëgg na koy sant bëgg na ñu di ko sant loolu moo tax mu sant mu sant boppam digal jaamam yi itam ñu di ko sant ñaareel ba itam ne dañ ci jële aw tagg bala day day fekk mu am lu ko waral bala ngaa tagg kenn day fekk ne dafa am lu ko waral lu waral tagg wa nee na bu dul loolu boobaa tagg wa neen lay doon moo tax bi mu ne alhamdulillah yàlla kat yeyoo na aw cant lan moo tax mu yeyoo ko mu ne rabbil alamin mooy borom bi def fi moo tax bu def yooyu yëpp mooy seen borom mooy kii yëwénal seeni mbir mooy ki leen di defal xéewal mooy ki leen di musal kon nag alhamdulilahu kon yeyoo nañu sant ko te mooy arrahman arrahim yërmandeem jooju ñoom ñëpp ci lañuy ñuy kon yeyoo nañu sant ko moom boroom boobu iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in iyaaka moom damir la maanaam waxanteel la koo kotoo koo jàkkaarloo di waxanteeg moom la na'budu mooy danañu la topp yow borom bi tabaraka wa taala topp gu ànd ak toroxlu ak màggal ak sopp parce que yàlla bu fekkee ne parce nit mën na laa forcer nga di ko di ko jaamu di ko liggéeyal di sonn waaye su fekkee ne loola àndul ak màggal àndul ak sopp lu may force rek la kenn du ko tuddee ak jaamu. jaamu balaa tudd jaamu day li ngay def day fekk sa xol sedd ci ba noppi itam nga ànd ceeg toroxlu ànd ceeg di màggal lañ koy defal loola boobaa. mooy tudd al ibada da ne ko iyaaka yow rek yow suñu boroom naabudu la ñuy jaam jiital gi ñu jiital iyaaka ci day tekki al xasr maanaam te yow képp yow yàlla naabudu la ñuy jaamu du ñu jaamu keneen wa iyaaka yow rek itam yow suñu borom tabaraka wa taala nastainu la ñuy dimbandiko gis nga kon ñaar yooyu rek moo seq doom aadama fii ci àdduna génn wet gi yàllaa ko moom mooy na ko jaamu géneen wet gi moom moo ko moom mooy daa soxla ndimbal yàlla dimbali ko waaw yàlla moom jox ko ko mooy jaamu ko li nga soxla itam wuti ko ci yàlla bu jox la ko bu ko wuti feneen li yàlla moom bu ko jox keneen li nga moom itam bu ko wuti feneen waaw bu ko wuti feneen kon deel jaamu yàlla di dimbandikoo yàlla parce xam nga ñaari yëf yooyu rek fi nekk alaxira ji lu koy jagal na abudu adduna ji lu koy jagal astain wut ndimbal ne ku julli ba pare daal di génn wuti wuti booy wut loo am jooju soxla nga ca dimbal soxla nga koy seeti nga fekk ko fa soxla nga looy wuti nga am ko soxla looy def lu nekk ku jàpp ni mais ndimbal loolu nag ñaari aay yi rek ci ngay xam jullit ñi fi ñu toll fi mu nekk bu dee naa amudu ji ci baree baree bari dafa tuñ ko yàlla kenn ku nekk pent nga loo xam ne loola ngay jaxam bu dee ndimbal yi itam wutatuñ ko ci yàlla kenn ku ne wut nga loo xam ne loola nga war ne moom ngay dimbali ko waaw xànc yaag galen yaag pettaaw yaag béjjén yaag yooyu yëpp ndimbal lañ ci jéem a wut kon moo tax aaya boobu moom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moom mooy segg euh, jullit ñu dëggu ñi ak ñi nga xam ne seen lislaam euh, wax rek la moo tax wax ne koo ne iyyaka na'budu ku dul yàlla moom moo lay jiitu ci wa iyyaka nasta'in koo ne yow laay jaam mu ne la kon yaa may dimbali ah te boo ko seetee loolu la ci aduna bi ko fi jaamu rek wala lo fi jaamu rek ya koy dimbali wat bu def bant la ya ko sam boko gardeetul leñu buddi ko sanni kon yaay dimbali bant bi pour ñu bañ ko sanni ya ko fa sam bu dee xeer la noonu bu dee nit itam yaa ko fa teg boo ko dimbaleetu léegi gis ko ci mbedd mi muy wuti lum lekk gannaaw nag bëgg mu màgg ba du tuuti ci bëti nit ñi kon fa nga ko dij yaa ko fa dij di ko andil lum lekk ngir nit ñi bañ a dajeeg moom ci mbedd mi di ko yab waaw bu loolu rek dañuy daal ah yow de sa waaje laat moo ma jaay dàll yi léegi su ko defee ko comme bañ nga nag loolu nga nga diñ ko fa mu diñ nag di wut di ko indi di ko jox kon yaa koy dimbali yaa yaa koy dimbali moo tax borom bi naan wa huwa yut'imu wala yut'am gis nga yàlla mooy joxe nit ñi lekk mais kenn du ko jox lu mu lekk wa huwa yut'im waaye wala yut'am mais keneen yàlla moom moom yut'am <laughs> dañ koy jox lu lekk su ko defee nag nga daal di ñaan borom bi tabaraka wa taala nga fii borom bi jàngal nañu fi tawassul nga tawassul bi ñu bari jàpp ne booy ñaan yàlla da war a tudd ay nit wala da ngaa war a mais da ngay tawassul ci ay jëf yu baax jëf yu baax yi nag bokk na nga tagg nga borom bi tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim tawassul nga itam ci al asma turam yooyu ak melokaanam yooyu su ko defee nag nga doog koo ñaan euh, tawasu ngay ci say jëf ndax nee nga iyyaka na'bud yàlla yow rek laay jaam kon loolu amal amal saalix la wa iyyaka nasta'in yow dong lay dimbandikoo nga tawasul ci yooyu nag doog ne rek kon nag yàlla comme yëpp def naa ko tagg naa la euh, tawasul naa ci jëf yu baax yi may def di ko jëme